gaay yi ël moo la marka yëglekaay dalal ci xëtu njëkkoo lekkaay bi loolu bëgg nañ koo yaatal bala noo dem ci li nga xam ne mooy yëgle bu am solo bi a ah, sopp na bi Olmo nag ñun xam ko mu dugal a bit bu am solo ci match bi mujj bi Espagne doon football gis ngeen ko taxawaay ba nga xam ne am na ko tey dugg remplaçant yër kër gi loole nekk mbégte ci képp koo xam ne football kat nga a ah, ci football meilleur fi mu toll ak équipe bii di Espagne marqué na képp koo xam xam Espagne xam capitalu Madrid xam équipe bii di merengue moom moom i Dani Olmo Euh, match quart bi finale bii nga xam ne dëgmal na ko ci Europe bi euh, match boobee tamit bëgg na ci am taxawaay te it bëgg naa jàppale lii la di gone yi te Allemagne gii nga xam ni tamit moom la war a dajal moom xam la na ni daanaka respecté nan Allemagne bu baax a baax ci wàllu football ndax Allemagne dootul équipe bu ndaw Allemagne du équipe bu ndaw loolee laa bëgg a dégg ak football kat di ko wax respecté ñi nga xam ne ñoom la war a dajal bu ko defee euh, bu match ba jox ko gëdd sa ngëm te it bañal benn yoon loolee bokk na ci li équipe bu Espagne di préparé gars yi ñu diglu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 15 45. C'est Diaspora Soap Nabi. Votre satisfaction nous tient à cœur. Diarama Diaspora na bi gannaaw yëgle bu am solo boobee ñu commencé xibaar yi ci yëglekaay yi ak euh, li la nga xam ni moo nekk sappo bi Sénégal ne sappo boobee nag ñu bari jàpp ni euh, mën na invité équipe yu mag yi tey loolee sax mooy dëgg ndax bu ñu xoolee yaakaar naa ni lu mën a dajeek Maleek Kosoor Côte d'Ivoire ak naari équipe. gars yi amul pour bu yomb bu leen ko xalaatee noonu ndax jàpp naa ne équipe yi. fi mu toll nii même boo amee premier tour bi jàpp ni yomb na bu ñu demee ba ca kanam di nga daj lu mburu daju loon cib taal kii di Didier Deschamps mi ñëw jël décision nag xam nga ne France Portugal gars yi match boobee du yomb benn yoon waaye nag li ñu gis mooy ki nga xam ne mooy Edouard Camavinga moom moomee dana bokk ci nga xam ne ñooy football ginnaaw ki nga xam ne mooy André Rabiot mi ma jàpp ni du football ca boobee match loolee du Papa Ndiaye Ah, ci li nga xam ne daanaka mooy digg militaire bi kon na ñëpp am yaakaar supporters yi merengue yi wala boog supporters yi France ndax xam naa ne merengue yi fi mu toll nii ñu ci bëree bari ah, ñi ngi supporter équipe bi la di équipe nationale France ndax ñoom seen intérêt la ni xool seen intérêt nag mënta passé seen waa Real Madrid gi dem foofee di fa ndax ñu mën caa ràññee ah, ci bu tooy ci waa mi ni mën caa ràññee ki nga xam ne mooy Edouard Camavinga mën caa ràññee kii di Kylian Mbappé mu am solo bu baax a baax journal bii nga xam ne nag mooy laa Dakar waaw moom li mu ñëw équipe nationale Sénégal bi nga xam ne yaakaar naa ni euh, fi mu toll nii lépp war na maam na ne yemb ngir mu ñu mën a am tournoi bu am solo tournoi bi nag ñii nga gis mën nañoo bañ a daje ñoom ku ci mel ni Maroc ak ki nga xam ne moo nekk Algérie ak Cameroun ndax loole daanaka ñoo bokk benn sàppo bu nu nekk beneen journal di stade di yëglikaay moom li mu indi gàll guuse gi mooy maanaam euh, Sénégal gu war a mën a invité ndax mën na koo éviter déedéet yaakaaruma ko ndax chance la Guinée euh, bokkul ci sàppo 1 kon Sénégal war naa mën a dajeeg moom runkum gars yi ci kanam tuuti yeneen information